actuellement foofee ca port autonome bu Ndakaaru en tant que le nouveau directeur général tey ñu jot information boo xamante ni Tribune moo ko relaté mooy xam ne ne Waly Diouf Bodian suspend 70 emplois loolu naka nga ko mën a jàngatee ci pays boo xamante ne ñu ngi am problème ak l'emploi des jeunes. waaw jërëjëf euh, yaa Seyda Binta c'est actuellement le cas normalement dans beaucoup d'entités euh, dans ce pays-là beaucoup de stations et d'entreprises public para public ak lépp su fekkee ne am nga benn nguur bu saay-saay nguur bi fi nekkoon dafa nekk nguuru voyu ngeen baal ma seen attitude du ñëpp de hmm. APR ña fa baax ëpp mais li leen tiimoon doon leen defloo moo bon fan la teer sabotage les six derniers mois ils ont saboté poste lan moo daaneel poste foo war a mën a liggéeyloo yi mille personnes nga liggéeyloo fa cinq mille personnes bi attanatu ko mu rës moo def loolu waa APR Benno Bokk Yaakaar les gens disent Siré Dia moo def loolu poste parce que moo ñëw indi ay nit indi ay nit voilà clientèle politique la politique politicienne moo nu rey moo nu sonal. Mhm. nguur gu bees gi nag am na ñu yaakaar ne wax dëgg yàlla vu fi ñu jaar loolu duñ ci dugg te yàlla nañ ci yàlla musal may wax ne la décision de suspendre des emplois il faut se poser la question yan emploi la est-ce que lañ leen lan lañ doon lan leen doon fay charge ba est-ce mu woon ci biir boîte bi mhm. parce que même cas de bi moo am RTS ci salaire yi ñu yokk yokk ay salaire alors que newul ci budget bi mu ngi ci budget bi ou pas reste à savoir quand on se rend ci budget bi ñu ne ah, nañ xaar bu mu dugg ci budget bi pour loolu day metti après ñu yokkaloon mer te salaire kenn ko wàññi. kenn du ko mm-hmm. laal mm-hmm. ak kii la loolu yëpp ruube ruube la waa ba ji ba jaxase moo di mettre en mal ñi ñëw ak ñi fi nekk donc ñun ñu ngi dem ok dañ leen di jaxase gars yi bu ko defee ngeen am jafe léegi nag assumation mooy defar dëkk da nga naan cent personnes yi seen salaire newu fi tegul ci yoon je les remercie y a aucun mal là-dessus au contraire parce que bu dul lool lan ngay def cent personnes yoo xam ne ñoo fi nekk léegi lan nan ngay def da ngay da ngay wàññi salaire ñeneen ñi pour fay ji non da ngay dem ba mun ko def nga def ko tel ne pas le cas toutes les personnes yu nekk ci ay administration service public parapublic nekk fa di traîner ñii amuñu bureau ñii amuñu nangam ak nangam dugg génn taxaw taxawal bureau diw ñëw toog eh waaye yow defaral ma kafe mais c'est fini ça te lu ci bari daal l'administration sénégalaise loolu moo ci amoon des gens ba am na jamono man je me rappelle yàgg naa dem building administratif di seeti sanu bàyyi ba jamono boobu am li maa wax ni 94 95 di yëg boobu on était au lycée Blaise Diagne mhm. daan dem baay bi Ibrahima Fall yàlla na ko yàlla yërëm nekkoon conseiller technique moom ak Mamadou Sankaré mhm. Mohamed Sankaré ñoom ñëpp yàlla na yàlla yërëm nekkoon fële ca euh, ministère de l'environnement mhm. au mhm. euh, temps ñu daan fa fekk ñeneen ak yeneen i kilifa boobu temps Abdou Abdoulaye Bathily bii moo nekkoon ministre de mooy jamono Hydro-Québec bi Abdoulaye Wade nanguwaat après ci période boobu on voyait une administration qui travaillait quand bien même on se rendait compte que am na leen lu tegul woon yoon. Mhm. mais quand le président Macky Sall est arrivé dafa jël niveau bu proportion bu extraordinaire on voit une pléthore de personne mais qui ngeen baal ma qui ne foutent rien ça quoi léegi nag soo bëggee defar nag defar bi dafa metti da nga naan gars yi lii mënut a wëy. Mhm. taxawee leen nii ak nii ak nii. c'est comme tey soo ñëwee ne njaga njaay yi daw ci dëkk bi waratuñ daw dama leen di changer. gars yi génn mer waaw ñun dañuy liggéey c'est comme les ambulants partout dans le Dakar. jaxasi Colobane Castor nit ñi amatu ci fu ñu dëkk HLM. par exemple kër yi fa ñu nekkoon marché bay dem dem dem dem ba fekk fa kër yi nëbb kër yi nga gis buntu kër boo xam ne cantine nekk ci kanamam amul waa ji mënul dugal ay bagages mais loolu yëpp soo ko bëggee defar. ñi nga ko seqal ñëw ñu dindi leen yëkkati leen ñu ne waaw ñun dañuy liggéey dañuy daan suñu doole waaw hmm. ñëpp ñoo ko bokk non moo di ne des emplois yoo xam ne dañ leen di dugal ou employé ne leen kat kaay leen ngeen liggéeyal signé leen këyit yu baaxul nguur gu bees bu bëggee liggéey su ñëwee gis ne tegul ci yoon Dakar teg ci yoon ba pare. Mhm. su leen soxlaa nag après mu woowaat leen. wa nag n'empêche loolu soo kaa def da ngay def de sorte que les conditions idoines yi permettre ñoom bu ñu jógee foofu ñu am ci leneen lu jàpp nga necc. Mhm. loolu day dëgg. Mhm. ñu def li nga xamante ni moom moo di la charrue avant les bœufs ñu di ko moytu waaye ci kaw loolu est-ce que du ñëwaat yokkuwaat. ci taux de chômage bi nga xamante ne le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ngi teg les moyens ngir wàññi taux de somage bi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk quand on parle de sept cent emplois yoo xamante ne tey jii nii viré nga leen remercier nga leen ne leen dem leen ngeen toog ñooñu suñu paree ci lan la ñu war a mën a jàpp yan moyens la waroon a mën a jiital avant muy egsi fii kii di Waly Diouf Bodian waaw non c'est-à-dire aujourd'hui euh, l'État loolu loolu ngay gis noonu décision yooyu loolu réaménagement moo di ne yéen fii du seen place parce que li leen di permettre ngeen nekk fi new fi xaal charge bi permettre ñu jël leen new fi qu'est-ce qu'il faut faire il faut ne leen dem leen ngeen wuti leneen mais ci biir dem leen ngeen wuti leneen bi à la responsabilité de mhm. les aider à trouver autre sa mhm. ça tey soo jëlee benn pas asat mhm. xamul ci bâtiment dara nga ñëw ne ko boo indil ma uy ma indil ma sa NINEA ah sax am na NINEA indil ma sa say papier euh, sa registre de commerce ma jox la marché entrepreneur. Mm-hmm. defar ay tali defar ay kii entrepreneur dem jëndi ay marché defar ay kii gagné ay marché manaam fu marché ne daal yow nga am ci kooku état bu baax su ñëwee di liggéey ne la cekket ci loolu dafa yàq emploi wala dafa defar emploi dafa jubbanti dafa jubbanti that the deal. amul leneen c'est-à-dire que les gens ne doivent pas résigner ou ou ou obtempérer dans le sens way lii du dëgg du yoon non il faut ñu nangu dëgg. sëñ bi fi ngay traversé ni passerelle baa ngi nii yëgal ci passerelle bi. waruñu la bàyyi nga jaar ci foofu xam du passerelle. Mhm. nga ne non non waa mais man dama dama am dama am urgence il faut ngeen bàyyi ma dem. la. Mhm. il faut que dëkk bi ñuy nangu waxanti dëgg. ñu dem ci defar dëgg jub jubal jubanti. peut-être c'est le concept annoncé et énoncé par le pouvoir en place mais moom la sunu maam yi yàgg wax mhm. dee leen wax dëgg mhm. dee leen jub dee leen nangu jaamu yàlla dee leen dox ci yoon ci lu leer lii moo mbir mi mhm. donc aujourd'hui le pouvoir est en train d'organiser de restructurer parce que il y a eu dilapidation et et yàq bu bu extraordinaire dans ce pays. dans ce pays mu ngi noonu ci loolu ci la ñuy daal di des ci élan jub jubal jubbante boobu nga xamante ni ab slogan gu gouvernement en place bi daal di xamle depuis démb Pa Assane dañu jot ay information ñeel li nga xamante ni mënees nañ kaa tuddee ay convention wala may nit xaalis ak la nga xamante ne ni moom moo xew ca LONASE.